Marko Grand gannaaw bañ la nuyoo di tey ñu fekk la fii nga xam ne mooy jàmm gën fii nga xam mooy koñu Siteu ak noonu waajal li nga xam ne mooy combat bi. waaw maa ngi nuyu sama gars yëpp ba pare. lamb ji ñu ngi koy waayal rek comme ni ñu waayal yenn lamb yi quoi. sant pare nañ fépp ñu si gannaaw Siteu sant yi pare nañ lépp lépp pare nañ sant yi ñëpp a pare. laa walaay yaa ngi gis fii nii jàmm gën gars yi bëri foo nañu jàmm gën ay bande fi nekk yaa ngi gis lii lii. ñi ñëpp ñëw ay policiers yi ñëw taxaw gars yi foo ne fii am violence wala affaire xamuñu violence ñun làmb lañ xam làmb ji nii bu ci jeexee pare nañ ci barke alxuraan karim si te na ko ñaanal jël bu rëy mu daan comme ni ñu koy waajalee rek lañ koy waajalee comme ni ñu waajalee yeneen rek moom lañ koy waajalee yàlla mooy maye quoi ñu ñaan yàlla may ñu ndam bu sedd guy ñëw jaama gën feere ko xam rek feere suñu victoire quoi am lañ koy ñaan. dem mobilisation rek comme ni ñu koy defee dem mobilisation du am violence du am dara pour dem jàppale suñu mbër ci ta daan ñu ñibbi si fair play quoi doon kese lañ koy waayalee. jongo ma la la da day ñëw war a jaay combat yi nekk fa gaay ma la sam waaye di pokaleer di maquillage nañu wax moo Siteu ñu jaay làmb ji su boobaa Siteu daan ko ñu dem ñibbi hmm? Siteu dafa gëm boppam rek Siteu bu dul lii nii sax Siteu dafa yàgg gëm boppam bilaa walaay talaay kon li ma la léegi rek la da gër jongoma la loolu du bañ jongoma la wana rusulaay bu ñu demee fee day maquillage rek la da gër xoolal non gerte la da lu gara imam nañ de pare nañ bu yàgg jëpp bañ juddoo lañ pare waaw di gërëm waa Area Alaya sëñ Sidi alxuraan waaw Siteu moom ñun nu moom amuñu fayam quoi ndax nit ku baax la te ñun bisam dañ siy sonn bisam lii ñun lii mooy suñu événement Siteu rek lañ am ndax xol bu rafet bu mu yor a ndax moom lu am da koy bokk nit ñi waaw gaa yaa ngi nii ah ari sëñ Sidi lépp waaw ñii defe naa ñii ñëpp ay supporters Siteu lañu buum yeex ñoom ñëpp àdduna ñoom ñëpp Siteu mooy borom dëkk bi ñun moom la am xam nga waaj dafa ne woon ku dee sa yaay juróot ah waaj ne woon ku dee sa yaay juraat waaye la dëgër day xaar parce que jongoma la jongoma la la dëgër moom wax dëgg fa yàlla la jongoma la day suus day suus la dëgër day suus. booy ñun instant bi doo dégg pot bi lañ soxla lu ko pimpi di waxee pot bi pot bi mooy bañ ah, ah. ah. waaw waaw Oustaz ñun daal ñun ñun bàyyiwuñu kenn xaalis moo ñu booleex mbër yëpp bàyyiwuñu kenn ku ñu na nattool ñu bërëx yow dañuy bërëx yow waaw ñun tolluñu fu ñu naan benn mbër bàyyi nañ lax yàlla waaw mais Siteu ñun ñun ñun am nañ lépp saa ñun am nañ lépp la dageer barki Serigne Bamba dawul sax suñu yaram la dageer day xaar rek benn joolo benn joolo dijju dëgër ak a gën benn joolo rek dijju dëgër ak a gën day xaar jongama la du puus du paas du raket déggoo ma de laaj ma laajaat ma leneen ma wax la waaw mais dina di dinañ dina ko déminer ndax loo wax mu ne la ba le 19 le 19 force day bëre le 19 heure bii ñu ngi xaar stade day bëre par force bés bi ñun dañoo pare bu yàgg ay waaj yi nii nii yab yàlla la ñun dañoo pare instant bi nu ñu reeree lundi ak mardi suñu sandwich yi bëri yi loolu la ñuy xaar ñun déggoo ma de ba lundi di gërëm nag waa Alioune sëñ siir bi rasa mu ngi ne waaw mbër mu mag bi rasa mu ngi ne waaw lay ziar mhm. tey ñu ñëw fi nga xam ne mooy Koñu Siteu mhm. bi mhm. mooy arrêt combat nga xam ne mooy deux jours muy dimanche. Soreto te diggante ki nan ngeen waajalee bés ak nan ngeen nar a ñun boo ñu xoolee suñu taxawaay rek ginnaaw yow bi ñu la nuyoo ba pare boo ñu xoolee suñu taxawaay xam ni nañ bu pare nañ bu yàgg xam pare nañ bu yàgg suñu paree moo tax ñu taxaw fii te xam ne ñun Siteu rek la am ñun jaam fii nii Siteu Siteu mooy suñu titre ñun Siteu moo ñu génnee keneen génnewuñu Siteu Siteu xam na Siteu xam na li mu xam na li mu doon jaam moo tax ñun ragaluñu dara instant yii nii la la guerre na toog ñu rek. non la la guerre ñun taxuñoo jóg non li ci kanam. ñooy xale ñoo ëpp doole ñooy bërekat yi la dageer du bëre ñun ñooy xale ñooy ñoo ëpp doole ñoo ëpp ñoo dàq bëre waaw. dañ koy xoolal dañuy dox ci kawam bëre moom daan ko jàngal ko bëre wan ko ni ko da ngaa war a bëre yow borom doole nga bëre moom ga war a def. waaw ah, benn jooy mooy benn song rek moom pare na ci wala benn coup. waaye lépp lañ pare làmb gay jeexal na wax làmb gay mooy pare lépp ku parewul lépp gay bis bi pare na ñun pare nañ instant yi nii xam nga lu ñuy xaar bis bi la ñuy xaar ñu jël oto yi dem feesal stade jiitu ko stade mu ñëw ñu defal ko bagage dem suñu yoon tarkindaa yaa ngi nii ñëpp ay tarkindaa lañ benn ngi nii eh. tarkindaa ngi nii waaw tarki ndaayaa ah, ngi nii ñun ñu lool de Siteu nee na ko benn jooy la koy jooy uh-huh. bari ki démb dama dégg sëñ as barxaam moom laay defee mu ne la dagee jëmu ji rek mystique la ñun ragaluñu lool de doomu séeréer bi ngay waxal doomu jonwaar bi waaw da koy mbuboo rek ay mboqam sax da leen a yéex a nuyu moom soose la di tiit di raf nekk foofu noonu di wax ak koo xam ne affaire Ngaka yooyu di wax ak koo xam ne teewul sax ci signature bi moo xoolal ñun pare nañ démb tey soog a ñëw yaa ngi waaj loolu dañ koy wax ku taxagul jabar koo koy am doom ñu koy laaj foo ko jëlee Siteu daa pare démb tey soog a ñëw ak li nga xam mooy violence bu ne violence la tudd li mooy jàmm ndeysaan yow bi nga dugg see jàmm gën sax yow man doy nga lool ci seede sa xel dafa dal ndax fii amul jotaayu paa ak xale amul jotaayu mag ak ndaw ñëpp ñooy bokk jotaay foo kafree mu am jàmm gën ñun ni ñu mel nii ñun fépp fu ñu dem dañuy bokk waaw Siteu wane na loolu Siteu rek doy na exemple bi jëmm Siteu rek doy na exemple bi sëñ As nag dinaa ko wax lenn As Barxam moom laay défier maa ngi ko dégg mu ne jëmu Lac bi rek mystique la. mystique la xoola naa ko nee naa ko Lac de Guiers xool ma fii day suro. Ah? Lac de Guiers day suro. day lan quatre appuis ah, kenn du ma vaar moom. bu ah. waxee leneen lu dul ma vaar ko. sëñ As Barxam laa la wax. waaw moom moo fi nekk di jéem a gas di garaaw garaawlu. Lac de Guiers day suro quatre appuis bi du ko rëcc leer laal tegal waaw borom dëkk bi bilaay waaw ñu koy ñaanal ndam nag waaw ñu koy ñaanal ndam yàlla may ndam bu sedd guy si kaw Lac de Guiers Lac de Guiers moom ñëwul moom pour bëre moom mu naan ay bële 19 bële 19 Lac de Guiers moom boo xoolee moom combat am yëpp ay machine la moom lépp ay machine la mais sa waaye bu moom dina bëre par force le 19 moom dina bëre par force ndax ñëwuñu pour nin ñëwuñu pour daanu. waaw loolu moom non la da guerre gars yi ñu waxee mais moomul géejawaay waaw kok jongama la yow kooku du pousse passe waaw ah, kooku jongama la kooku boo xoolee yaram bi nga xam ne kooku jongama la moom ñoo la léegi bu la 19 dina xam ne yàlla mi lu ko sekkal ak Serigne Touba Mbaye du pousse du paas ak du 100 francs waaw waaw non instant yi nii moom nii moom instant pare nañ fépp moom dañuy xaar le 19 jot dañuy xaar le 19 jël ñu dem feesal stade ba mu fees dell ñu jàpp sa waay daan ko ñibbi waay ñibbi si waaw. waaw ñëwaat fi ñu ngi lay xaar billaay wallaay ajo baay waaj lépp ba dee naa daan nag gis nga géej waay laa jóge géej waay laa dëkk fa laa jóge bëgg ko rek dégg nga li ko wax nee na ko man bëriwuma ak koñ de xam nga Siteu bëriwul géejawaay Siteu li am fan si ay géejawaay laa dégg amu ko fa booy géejawaay yëpp Siteu lañ dama ko xam rek te moom nee bu arbitre ne fir mu ñëw combat bi jeex na ñëpp reeri jeex na nee bu arbin ne fir day ñëw bu ñëwee combat bi jeex ñëpp reeri waaye yow damaa ragal loolu man Lac de moom leer na ko naññ ne dañ koy daan moom xam na loolu Lac de Guiers toful tof dofluwul xam na koy Siteu bu baax baax booy lay woy lu ku dese ay jural ensemble waaw waaw c'est du soo